xam ne euh, yaakaar naa wàllu taalibe yi nag ñoom ñooy sàmm aussi seen diine sàmm seen ngëm-ngëm li si des itam wàllu sëriñ si la ñoom it ñu sàmm li nga xam ne moom la leen euh, ci di waxtaan ci ci waxtaan la ak ci xam-xam euh, leneen li moom état bi ni ma ko waxee rek ci wàllu woowu lépp lu fi indi ay xalaat yu bees ñu war a doxalee diine moom ñun dinañ jàmmal wàll loolu ci wàllu état donc loolu na gis ngeen ni mu yàq euh, loolu dafa am taxawaay boo xam ne ñun ñu si mos a jógee incha allah li ci des nag mooy di leen félicité ci bés bu bi di ko si mën mu am état mënul dugg ci biir kër yi di yar doom lu ku nekk si mbedd mi ci yoon loolu yoon moo lay teg tegaat ci yoon leneen li ma bëgg a wax lu gën a am solo sax lii mooy suñu diine lislaam ci Sénégal wax bu ñuy wax Yoof ñu dëkk maam bi maam bu ñuy wax Touba ñu dëkk suñ Touba teewoon ni na Alaaji Malick ah Cheikh Omarou Fouti wax ngeen ko geneen muy lislaam boo xam ne du muy dugg fii ci réew mi di Sénégal ëpp na junni at ak lu topp près de ane cent années yoo xam ne l'islam mu ñu koy doxal ci ni ñu koy doxal ba tey jii kon l'islam boobu war nañ ko sàmm ndax mooy l'islam bi ñu taamu mooy l'islam bi ñu xam te mooy l'islam bi ñu jig mooy ñu indi leneen di ko sénégalais ci ci wàllu diine loolu yàgg ko wax wax ko Tiwaawan wax ko feneen war nañu suñu ak ñu ko amee parce que li lii la ñu xam ñun ci lislaam ñu tarixa yi ñu sëriñ si nekk suñu wasila war leen fonk fonk li nga xam ne noonu la en tout cas suñu lislaamu Sénégal taxaw parce que naa wax ne loo topp junni at waratu ñëw naan dañ lay jàngal noo koy noo koy toppee loolu nag daf ci am loo xam ne euh, yaakaar naa wàllu taalibe yi lañ am ñooy sàmm.